moment ba léegi rek duñ dem te laaj li nga xam ne moo xew ci oustaz Modou Fall oustaz Modou Fall gis nañ ne fan yi moom bés bi moom macha allah coow li bëri na ci moom trop ñu gis ne dal dafa daanu ci kaw otoom en tant que maman en tant que voyante nan nga gis waa sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a dëgëral. li ko puus li ko puus. li ko ne sempe ci oto bi puus ko ba fa oto bi ba daal bay daanu ci oto bi <laughs> yàlla na ko yàlla loolu gën a làkk mhm. moo tax nit lépp looy def bul ko triste na doon dëgg ci yow ñaan ak yéene yam ak waxtaan mhm. ak bigal doomu aadama yi mhm. nga lu suñu borom nangu na ci ñëpp maandu fi mu ne nii galgal yi bari na pexe yi bari na waaye gi nga suñu borom ni ko aaree moom sempi na ko ndax dal bu daanu ci oto moo gën dal bu daanu ci nit ak oto mbir mi dafa ndax loolu rey na ku ne bés bu ne. Mhm. yëpp day gën a wane ne rek gis nga niveau bii Modou Fall Modou Fall di mhm. bare ci la loolu am parce que am na ñoo xam ne dégg nga ñuy dégg Modou Fall Modou Fall nekkul lu neex ci seen xol kon cat bu rayul semmal. nekkul neex seen xol. dama ne cat bu rayul semmal. cat bu rayul semmal. moo tax buzz ñun ñi ko miin xam ko bëgg ko. mu ànd ak ñun. Mhm. ku yeboo ñaanal ñun yàlla fal ñu cat. sànq Oustaz Modou Fall nag macha allah. ren nag ah macha allah. ay mbiram mbiram dafa yëg bës bi waaye sant yàlla. ba nga yàlla na ko yàlla sàmm. Mhm. yàlla na ko yàlla aar waaye nit ñi na ni nangu. Mhm. li yàlla dogal. ma di ko wax ne nag na saraxe. Mhm. téeméeri sachet ndox. téeméeri. sachet ndox. Oustaz Modou nga ko. kilo guro bu weex kilo guro bu xonk. wut hmm? ko ci ndox sangoo ko juróom-ñaari fan su paree génn guro yi sarax ko ku ci wërsëgam nekk mu jox ko ci gën na ci moom waaye yàlla baax na.